mooy maanaam déggoo bi yëpp ci Aliou Cissé laa kii. parce que mooy maanaam Jaraaf jël na coupe mooy championnat Sénégal eh, eh, eh, kii nu mu tudd génération foot jël na coupe mooy coupe du Sénégal. Khadim Ndiaye su mënoon góol woon kon wóor na yàlla dina am golo fii ñu bàyyi ñu bàyyi booy yooyu yëpp ñu ñëw bàyyi Diallo bàyyi ñëw dugal Khadim Ndiaye. match yi ñu ñàkkee yëpp Khadim Ndiaye ñoo ñu ko indil xam nga li ma la deuxième fois bi Aliou Cissé doo leen yaakaaree coupe ci moom coupe du ñëw Sénégal xanaa di ko croisement Cameroun man maa ko wax xam nga li ma la troisième fois bi Sénégal lu yàlla may doomu aadama nañ ko ko nangul Selbé Ndom su waxee carrément ne nañu saraxee saraxee bi nag bi lu mu seer seer deux cent mille francs la nañ ko génne ti ah nañ ko génnee ñu xool ah mais ñoom ñu ne carrément duñ ko génnee te ñu am doomu Sénégal am xam-xamam ñu wóolu ko wóolu waxam ba pare carrément ni nañu jënd benn nag bu ñuul kese nag bi teg ñu ah ah man maa ko wóolu man a ay jëlee lañ. Sall muy wax may ma tuuti waaw waaw may waaw may ma tuuti. waaw waaw booy man xaw ma Sall ba noonu mais maanaam benn nit la ci doomu aadama yi wax na waxam nañ ko ko defal ñu xool xamul li ma la ñu mus loxo xamul li ma la mais loolu donc wax na loolu léegi ñooy yëpp am na fu mu nekk nii mais kon kay fu mu nekk nii saa waay nañu xaar jour yi di bu eh, eh, Marta Sandaga rek mais Macky Sall ci jëmb boppam def na li mu war yépp carrément ni yéen dem ngeen qualifié ngeen am ngeen 7 milliards indi nañ ko moom mu ne du si lekk dërëm dama leen koy delloo yéen ñëpp ah, loo leen defal leen ko hôtel yi gis ngeen ko yéen sénégalais yi moom far moom moom Macky wax dëgg yàlla ah. le grand président def na li mun def na ko ah. may ma tuuti booy may ma tuuti ma yeggali booy xam nga li ma la def na ko xam nga li ma la ñun nekk balaa ñuy xam njëriñam maanaam moom Ah, mu jóge fi moom ma Sall parce que am na yërmande comprendre na booy bàyyi ne play bi dem dem dem Russie kan moo ko def ban président fii Sénégal kan amul amul xam nga li ma la mais kon kay ñàkk nañu kay ñàkk nañu amatuñu lu ñuy wax amul ah amul man ne loolu laa ci gis man donc maa nekk su eh, taximan boo xam ne maa mos a taxaw buntu kër Macky Sall ma ne ko yow yaay doon président Sénégal su ko weddee moom Macky Sall dama woo man man donc maa sa moto taxaw barki xaadim rasul ak li may wut ci àdduna barki Seex Muudu Ami Sey man mbay laa tudd mbay mbeng fekk ko buntu këram fii man ko yow yaay doon président Sénégal te li ma am na ngeen baal